bismil ilaahi ci barkeb Seexuna muxtaari xettilinu bismil ilaahi ci barkeb Seexuna mi nu gën tey xaadimal mustafal dem te doon dem gi metti weer yi bu feeñaa borom tuuba noppalu ngir day kër kër yi jaamu buuru buur yi gindi nanu bi laylatil xadri mbootum weeru koor bi la nuy eh, salaamaaleykum mbokki yi nuy seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax am mbégte ci dalloo koo xam ne yaakaar naa ñi nekk Argentine daañu ko miin ñu doon benn doomu sénégalais boo xam ni def naa ay réew yu bari yàlla may ko moom fa benn expérience gis ay doxalin rafet yoo xam ni mu jàpp ni euh, bu ko suñu réew royee dana nekk loo xam ni it mën na jural réew mi ëllëg ca kanam mu jëm ci gouvernement bi lu jëm ci jeunesse bi moo xam ci xale yi waaye ci musique bi muy wuyu ci turu Abdou Dieng euh, donc bindkat la nag bind na ay livre yu bari xanaa nag tey dañu tànn bi nga xam ni it mooy livre boo xam ne bi important la mu tudde ko ëllëgu Sénégal ñu koy jiite mooy suñu ñi nga xam dañu nekk ay migré. waaw sëñ Gora jërëjëf maa ngi lay nuyu ñëpp kenn ki ne sa tur ak sa sant di mbokk argentine yi nekk ci àll yëpp ci latin bi di nuyu tamit sama mbokk yi nekk ci yeneen ci monde bi yëpp ak waa Sénégal maa ngi lay nuyu ñëpp. Euh, bu ñu tuddee ku bind livre ama am na ñooñ bala ñuy xool ci di la seetaan daañu saakoo xam kat moo ko def fan la jot a jaar. ak lu tax livre bi mu bind ko comme sax waaw livre bi li tax ma bind ko dama yàgg dox di gis li nekk ci àll bi génn Sénégal di gis lu bari nekk ci àll bi ma ne ah daal dinaa bind comme ko bind leen wax dinaa bind pour xool ëllëg lu ci njariñu Sénégal mën a nekkee ñu jël ko ci. ndax Sénégal danañu pays sous-développé leen te ñun ñoo ngi waaye ci dëkk yu bari yu wax ay développement la ñu ni nan dem xool la fa nekk ñu bind ko jox ko waa Sénégal bu dee am na ci njariñ tuuti loo tax ma bi ma dee ma xool lu bari nag ma ne ah livre bi xam naa ne dinaa ko tuddee les émigrés les futurs dirigeants du Sénégal waaw te loolu daa am fu ma ko teg fu leer nag ay analyse yu bari ma defa def loo tax ma xam ni lii dina nekk incha allah rabbi buñ ko déggee mooy ëllëgu Sénégal yi euh, ñi nga xam ñoom ba immigré ñoom ñoo koy jiite loolu fan nga ko teg ku baax waaw benn point kooku moom bari na xam nga day gàttal rek ndax lii bi dafa gudd bugguma wax fi yëpp ndax fi lay fanaan waaye dama bëgg a leeral point par point rek ndax bu njëkk bi mooy damaa gis ni Modou Modou yi buñ génnee Sénégal ñu puus leen ban dem buñ demee dañuy fàttaliku ñu bari seen ginnaaw par rapport ak différence ak gouvernement Sénégal ni muy doxee ñoom bu leen poussé ban dem ba ca kaw dañuy fàtte ñi ci suuf ma ne ah loolu benn point bu am njariñ la ñaareel bi ma ni Modou Modou yi dana ba nekkee bitim réew lu ñu am dana koy sànni Sénégal différence ak gouvernement bi gouvernement bi lu ñu am Sénégal dañ koy génne bitim réew ma ni ah loolu de bis loolu de moo téye Sénégal ndax li gouvernement bi di génne Sénégal ñoo ko indiwaat man ni ñii ñoo ngi yor réew mi ñii mën nañoo taxaw réew bi ñetteel bi ma ni ñuy dañuy dem àll ba di souffrir di sonn mais mënuñu koo bàyyi ndax la seen njaboot gën fa nekkal ñoom jaral ne ñu dee. mais na seen njaboot dund dund gu neex loo tax ma ma ni ñii daal ku leen jox réew di leen ko yor loolu daal ci la point yooyu laa dem di dem ma ne ah kii dina am solo te te bu ma xoolee ba xool li ma jaaxal mooy dama ne woon tubaab man ba léegi ma naa gis ay temps dama an tubaab bi ay extraterrestre lan ma ba nekk xale lu ma laaj ñuy tubaab ko defar oto ñuy tubaab avion ñuy tubaab lu ma laaj ñuy tubaab ñoo xam ne noir lu ñu defar waaye après ma ñëwee ba ci seen biir ma ne man dinaa xool li tax. non tubaab bi mën a defar te ñu mën ñoo defar may jàngat di jàngat bi ma leen xoolee ba xool leen ay nit leen comme ñun affaire bu jaaxal ma loolu ma ni waaw lii ni mu demee nii waaye ma ne ah xam naa kon si seen der bu weex bi la quoi ma ngi naa xool ci der bu weex waaye moo xool ci der weex bi ma xool am na tubaab yu ci yeewul am na tubaab yu ci yeewu am na tubaab yoo xam ñoo leen gën a yeewu am na tubaab yoo xam danoo yeewu loolu ma ne kon du der bi ma làmb beneen côté ma ni xam naa kon ah am na sax lu ma lu meer daan wax naan sa doom ji boo koy bootee ginnaaw du am xel waaye loolu tamit ma ne du loolu tubaab yi kanam la yi boote mais gis naa yeneen yeneen peuple yi bootee kanam mais tamit développé ñu comme ni tubaab yi ma ne kon du foofu ma ne tamit ma dem ci côté lekk gi mooy tubaab bi liy lekk xanaa kon daa gën li liy lekk. waaye ma xoolee itam lekk gi Sénégal moo dàq sax lekk fii tubaab bi ñoom li ñuy dundee pizza hamburguesa yooyu daal la ñuy ñoom seen dund yu simple du lekk sax foofu taluñu sax lekk te ñoom day lekk ba suur añ ndékki ceebu jën supp kànja ma ni kon du lekk gi ma ni léegi for war a nekke ndax ma gisee ma gisee ay ingénieur fii ay avocat ay euh, scientifique yu créé te xam dama leen xam ci koñ bi ma gis ma ne nag lépp nag ndekete woon milieu bi la le milieu qui joue Sénégal loolu moo fa manqué ñii fi leen di yarale de à bas ba ci nekk mag ak milieu bi leen nekk ndax xel dafa garaaw yàlla dañ koo jox yàlla bu ñu xel dañuy bàyyi ñu xalaat ko mais il nga xel moom nga toj ko mu doo ko ñor ab buyil gars yi daa buy moom boo ko tojul du ñor xel mi day nekk si yàlla ñëpp la teelal xel mais il faut ñu toj ko yàlla tubaab bi dañoo yeewu dañ koy teel a toj bi nekk xale ba ndaw lay toj xel bi ba mu dem ci kaw loo tax seen yeewute foofu ak seen millier ndax xel ba amul milieu bu baax du dem loolu seet naa ko il faut que milieu neex muy nelaw nelaw yu neex tëdd fu nooy di lekk lu neex di yor oto yu rafet di def nii loolu da ngay mën a da mën a xalaat say xalaat day dem loolu moo manqué Sénégal Sénégal mënoo tëdd ay yoo di la sonal nga bëgg a voyager dem fii ak dem fii cinq heures de temps sa xel mi du dem nga bëgg a sol ngan di grand boobu yu toll ni ngaay mexe doo dem yooyu lépp sa xel mi day naju ba xel mi du développé ma ne nag yii il faut ñu xool ko kon daal différence bi dong daal lan am ci tubaab yi ak noir yi ndax tamit yàlla tam dañu lan xadd karam naa bani adama te ñun ay jullit ñun war na sukk ci sukkandiku ci loolu ci wàllu xadd karam naa boobu dox ndax yàlla bu nee nit la gën a bëgg tubaab bi man defe naa tubaab bi sax ñoo la gën a xam wala xadd karam naa googu moom Sénégal war na cee xool bu baax nag ndax ndax nit ki bu yàlla ne nit ki la gën a tubaab nit ñi la gën a bëgg ci àdduna comme ñun war nañoo wan ba yeneen xeet yi yu nekk ci monde bi wala yeneen être être vivant yi nekk ci monde bi ñu leen gën a yeewu ndax yàlla ñun la gën a bëgg war nañoo def lu rafet di def di sol lu rafet tëdd fu neex suñu rut rafet suñu dëkk set loolu moo tax yàlla bëgguñu ndax yàlla tam doom yooyu la bëgg ndax yàlla tam du jàppale dëkk boo xam ne si bëggul a jàppale boppam loolu moom ñëpp xam ne il faut dëkk bi jug jàppale boppam yàlla dog ci ànd loo tax lan la xadd karam naa boobu dan wala xadd karam beneen nga dañ koo jàng al ar man xam nga sama jàng suruf mais gis naa ne ñu ko jàng dañ ko utilisé wul bu ko utilisé wul rek Sénégal waaw te gis nañ tamit yàlla ni bakken bu mus dund dina mus dee ñaari point yooyu rek moo nañ ci développer Sénégal mooy un gouvernement bi xool ni ëllëg dañuy dee fi koy bàyyi jàppale ñeneen ñi dëkk bi neex trois wala xadd karam naa ba ne Adama ñu ni àdduna daa fonk dama am ñu war fonk suñu bopp tam defar suñu dëkk ba mu rafet ba yàlla ëllëg bu ñu gisee kontaan ci ñun foofu daal laa xool ni ma ne Modou Modou ëllëg gis nañ nii lépp ñoo mën a war a yor réew mi waaw eh, ñu gërëm ko mu nekk suñu gan ci Touba Argentine defee di wuyu ci euh, Tour Abdou Dieng dox nag ci ay réew yu bari dégg nañu fi mu sukkandiku boo xam ne ëllëgu réewu Sénégal mi ngi foog ni ñi nga xam ne ñoo immigré yi ñoom ñoo koy yore ndax lan tudd na ay ñoo xam ne xonq nopp lañ yàlla may leen ci wàllu xel loolu ne nga jaaxaloon na la waaye bi nga ñëwee xam ni ay nit dong lañ comme ñun dañuy xalaat waaye nag la fait nit ki di xalaat wala muy egg foofa yi dañ ko waajal ci lu bare bare ba tax bind ci biir ni sanees maanaam muy ndaw ñi am na mag moo xam ne dafay wax ni wan ma sa ndaw réew ma wax la sa réew ba tax bind ci lu bari kon dafa mel ni kon xale dañ ko war a màggal waajal ci bi mu nekk ndaw ci jàngal ko waaye ci yee ko ba ëllëg mu mën a taxaw réewam loolal bind nga ci lu bari ba def ba wax ni sax par rapport ñi nga xam ni ñoo nekk fii ak suñu ndaw Sénégal waaw kooku dëgg la dama ne éducation bi dafa am solo la Sénégal lu ñu war a tàmbali gaaw mooy éducation ñu tàmbali ko nag à bas âge ba nga nekk xale ba ndaw man fii dama gis tubaab yi seen xale yi bu leen yar dañuy am deux ans ba trois ans rek lay am dañuy yeewu ba nga xam da nga naan waa kii tax mu yeewu ndax du dara nag damay gis xale yi sama kanam man ma xool leen ni ñuy yeewoo ndekete da conscientiser teel a incité seen seen xalaat mu jóg ni def da leen ànd ak ñoom di wax ak ñoom fu ñu dem bitig bu ñu dem di jënd ànd ak ñoom bu ñuy dem supermarché ànd ak ñoom bu ñuy voyage ànd ak ñoom di ñuy xool jàpp leen ay mag la leen di bu tubaab bu ñu doon jëndal sax xale bon tubaab sax bu ñu koy jëndal euh, ab semise sax bu ko neexul dan kenn ko jënd dañ koy laaj ñu ko bii couleur nga bëgg bii ndax loolu day def personnage ci boppam quoi dañ ñoo ngi koy wan ni yow nit nga mi nga war a présenté wu day xam ni kii day day commencé yeewu waa day yeewu dëggantaan da ngay gis tubaab xam ne dañuy yeewu ba da lay jaaxal yow da nga naan kii fu mu jëlee mais loolu moo manqué Sénégal ba tey Sénégal yow gis nga xale yu ndaw moom ba 15 ans xale nga rek ci àll ba lay fay demal fooy demal fubali xal bu gan ñëwee ñu la demal ca mbedd ma te woon na la bàyyi nga toog ci mbedd mi ci ci ci kër gi ànd ak gan yi di wax ak ñoom di dégg seen xale waaye du nga ko def xale moom folo fubali mbedd ma salté tilim yooyu c'est éducation il faut ñu defaat Sénégal mooy ci daara ji tam li ma la wax il faut que daara ji tamit ñu jàng Alxuraan c'est très bon ñëpp ko bëgg mais Alxuraan rek rek doxalul monde bi il faut ñu jàng boole tamit àdduna tamit waaw ndax yàlla tamit loolu la suñ suñu yoon sax loolu daan def yonent Muhammad sallallahu alayhi wasallam jàng ci l'école yi boole koog lépp boole jeu defar xale yi itam daara li tax daara li tax ngay ngay tilim pour mën a jàng mën ngaa seet loolu mën a jàng mën ngaa bañ a yalwaan mën a jàng lool lool c'est pas important loolu lépp da ko defaree préparer xale yi fii ak 10 ans 15 ans ci kanam di nga wax ni Sénégal changé na beneen réew lay ne waaw il faut ñu la commencer dès à présent ci base dem ci kaw waaw loolu la nu wax nga ay point yoo xam ne yoo am solo la muy ci xale tel ko génne teel ko yee waaye it ci benn côté mu am ci liberté am comme li nga tudd léegi buñ koy jëndal ànd ak moom lii la soxla mu doon loo xam ne it fierté lay doon ci moom ëllëg bu ko solee par rapport ak ndawu Sénégal ni nga ko waxee dañuy jënd ñëw indil la bu fekkee soxla ko it ñu forcé la ne da nga ko sol loolu li lay indil mooy nga dem école nag am problème parce que li nga sol neexu la da mer ba sax sa jàngin du demee noona voilà foo jëm it àndal la muy teel di gis di xam li nga xam moom moo di fecc danse mu doon loo xam ni it euh, par rapport bu ñu ko tëkkalee ak ak ak yow ni nga waxee fii ñoom seen musique doon ay lettres yoo xam ni it dañuy sensibiliser di yeete ki nga xam ni jàng rawoon na ko sax bu fekkee mi ngi bàyyi xel musique bu baax baax mën na doon koo xam ni man na mën na ci defar xelam tuuti tuuti tudd nga it fecc euh, par rapport ak ñii niñ koy defee yu Sénégal bind nga ci lu yaatu. wax loolu dama voyagé gis dëkk yu bari moo xoolee musique Sénégal ma gis mu musique Sénégal tardé na lool lool lool musique Sénégal ak feccum Sénégal tardé na ba jaaxal ma vraiment bu ma déggee benn waykat Youssou Ndour mu naan musique moom Sénégal dong la moom. man moom boo dalee ba yaay ba tey ñaari musique laay dégg ci àll bi mooy Seven Seconds Youssou Ndour boobu te ak tubaab la ko àndal nee na série ak bi mu ànd ak Peter Gabriel ak Kumba Gawla Seck bi mu ànd ak kii di bi mu woy pata pata loolu moomu ko sud afrique nga ko moom ak baa malien saa nga dégg ko yooyu daal nga dégg mais à part doo keneen loolu dafa doy waar foo dem ci monde di nga dégg musique brésilien di nga dégg musique indo musique arabe salsa cubano foo dem dégg ko nga fële Euh, les rapport États-Unis da nga koy dégg foo dem ci monde bi day mel ni dëkk boobu lañ dëkk dañuy jaay des millions de disques indi ci réew mi nit ñi am ci dara mais Sénégal mbalax di waddi waddi mooy li ma wax ci fecc mi nga wax noonu fecc mi amul bopp amul génn fecc bala moo baax da ngay am chorégraphie ñoom xam nañ ko gars yi ngay ut ay chorégraphe di leen fay ñu jàngal ay fecc ay pas de danse yoo xam ne koo gis ci monde man koo fecc xam ne ñëpp day international loolu ci dëkk la bokk il faut nit ñi di fecc way loolu moom àdduna développement ci la bokk mais il faut ñu defaraat ko waaye fecc mel ni ku yor ay rab boo gisee kuy kuy fecc sax Sénégal da nga naan kii dafa yor ay rab te rab yooyu mooy dem ba da koy fekke si yenn saay ba mu dof ba mu gën a dof loolu nit ñi moo tax xale yëpp dof nañu ngay fecc di raga joo ko xëccëk di lekk suuf ak bu fekkee ni dégg naa la fecc bi il faut mu am ñu organiser ko jàng ko ci ay lekkool mu doon loo xam ne mën na nekk international ba ko suñu mbokk tubaab yi sax seetaanee man ci roy ci benn côté mu la déggee jeex na loolu rek laa bëgg ñu defaraat ko ñu teg ko yoon bàyyi di woyaate di pour xaalis amul njëriñ Sénégal li wax ci yomb bëgg lu gi moo loolu lépp la laal bëgg lu yomb gi de gouvernement bi ba ci suuf bi gouvernement seen bëgg lu yomb mooy lan def un an ci gouvernement bi ministre yi yore milliards liggéey ñu def dara député yi toog di nelaw guddeeg bëccëg di yore milliards musiciens yi wayaate ñu may leen cinq mille cinquante millions cent millions kooku la muy waye ah jëpp loolu dafa amul jëriñ taalibe sëriñ yi ñi leen di jàngal ñoo ngi ci àll ba di yalwaan faalewul leen seeni papa du leen dem seeti pour jox leen dërëm ñu gën a jàng loolu mooy dëkk dëkk boo xam ne dafa bëgg lu yomb te dëkk bëgg lu yomb du dem te tubaab looy ma wax defanaa bi ma indiwaat mooy danoo teel a yee seen xel bi nga xam day bëgg rek lu rëy day dem rek seen xel day gën a expandir comme nii univers bi univers xam nga de chaque jour day expandir di dem la la lune yooyu chaque jour tubaab yi foofu la ñuy basé seen expérience di dem loolu nag la moo manqué sunu Sénégal sunu Sénégal sunu xel dafa des ci kaw te bu bàyyee ko suuf dañuy mujj tayel loolu mooy indi tayel sa xel bu jugul da ngay tayel te boo tàyyalee dama liggéey dara ku tàyyal moom dem nga teer moom dara doo ko moo defar ci àdduna da ngay toog di nelaw rek loo tax ñu dellu ginnaaw na doo kon yàlla yàlla musal ci tàyyal baaxul Abdou Dieng la ci suñu gan nekk kat bind livre bu am solo yaa ngi tudd lumière mu doon loo xam ne lu am am solo la ci réew muy leeraange ba sax jël nga ci loo xam ne it xam naa secret la muy nit ki bu fekkee ne mu ngi dund lumière dafay am lu muy lu muy def ci moom quand wax nga lool waaw loolu moom dama koo seetlu seetlu ko seetlu ko ci làmp yi seetlu ko ci nit ñi seetlu ko bu courant coupé ma ne ah ndekete lumière bi na dox ndekete jant bi bëccëg li tax nit ñi di dox di di di di jant bi la quoi waaw jant bi leer nga mooy li ñu jox électron yooyu ñuy dem guddi gi bu toogal ba yaakaar courant coupé nga xam ne ñëpp dañuy mel ni ku dee bu courant coupé bett leen nii ñu doon dox ñëpp activité bi arrêté ndox loolu nit ki la loo tax lumière. fu mu gën a bari nit ñooñu dañuy gën a dox ndax jant bi day génn ba 7 heures boo ko enchaîné ak lumière ba 9 heures 10 heures 3 heures nga ci yokk noonu nit ñi dañuy gën a active mais boo teelee amul lampe amul lumière nit ñi day teel a nelaw lu am solo la lumière da ngay xool euh, gunóor yi nawet ba génn ba lampe yi tàkk ni ñuy activé di dox di créer lampe lumière booboo tax. lu tax nan nëgg raay bi taxaw ci loolu nga xool na defar lumière Sénégal di lampe ba lumière ay jeu de lumière foo 31 décembre dëkk bi dox nga xool di nga ne lii waxatu bokk li Abdou Dia waxoon na ko lumière lu am solo ci dëkk buñ bàyyi fenn lëndëm nan defar Sénégal mu leer defar bant yi nga ko defar route yi lépp leer def ay jeu de lumière ci ay koñ activité nit ñi activité nit ñi loolu am ñu dugg ci beneen fànn bu am solo boo xam ne yaatal nga ci lu bari ci livre bi muy transport mu nekk loo xam ne it yaakaar naa lu solo la Euh, bind nga ci ba indi référence boo xam ne am na ci diggante fii ñu nekk ak ak Sénégal par rapport bi wax nga ko. transport moom li ma la wax dëkk bi moom dëkk bu amul transport moom du dox dëkk bu amul transport bu baax du dem fenn dëkk bu amul ay train du dox il faut que dëkk ama ay train dem ko ñëw dëkkee mënu ko defal ci ay njëga njaay ay set place ay car rapide dem ak ñëw yow xëyal nga xëy war a voyager ji war a dem Dakar war a liggéey nga dëkk benn koñ war a dem dugg ci car rapide karape bi emprunté bi toog tilim nga sol sa kii bu weex tal defe ne yaa si service nga dugg emprunté bi tilimal la kooku rek waañ sa journée yàqu na nit ki boo xëyee am mer rek sa journée boobu yàq na boo élève bu jàng la dootoo jàng bu dee kuy liggéey la boo dee doo liggéey bu dee ku nar a dem ab ngénte di nga mer ba dem ngénte la ko fa laal nga saaga ko yooyu laa lay wax il faut que ñu defar ay transport rafet ay kaar yu baax li may wax la la xadd kaaram ngaay bi ma waxoon wala xadd ñëwaat foofu ndax nit ki il faut nga fonk ko fonk sa bopp yàlla mën laa jàppale nga war a voyager nekk lu neex toog fu nooy dem egg fu neex kontaan mais dugg ci car rapide baa nga dugg ci am ci jaay ñu lay xëppal dugg ci sept place wala sept place la ci li gën a bon nga war a voyager nekk ci ginnaaw ñett yooyu loolu loolu Sénégal rek la am mës ngaa voyager sept place nekk ci ginnaaw yow trois place ci ginnaaw say kooku kenn war ko a fayee ko loolu dama ko kaas ba soor dafa metti nga toog ci ginnaaw doo sëgg doo kii loolu Sénégal da nga ko woon dépassé mel ni ay xar di voyager ay xar nekk ci kaw ba ay ginaar nekk ci suuf saa yi loolu dafa ñaaw loolu nit loolu yàlla bëgg ko doomu aadama yàlla ni bëgg doomu aadama billahi dafa bëggoon doomu aadama addunaam neex fële neex mais bu ñu waxee rek ñu ne tubaab bi ñoo mën àjjana ñun ñoom moom fii euh, maa ngi jéglu sax waxee ñu ne tubaab bi ñoo moom àll ñoo moom àdduna ñun ñoo moom àjjana loolu loolu daa wóor saa waay loolu wóorul. leen defar fii dund nii ñoom neex ëllëg bu ndee am sunu àjjana jàqale leen waaye bu leen bàyyi àdduna gi feefee wóorul bi nga tudd mu nekk lu am solo euh, ban saafara lañ ci war a mën a am bu ñu xoolee bu ma joxe exemple ci sëriñ Mamor Mbacke non sëñ Moutala Mbacke bu seexul xaddim euh, bi mu génnee def ci biti tuuti yow bu fekkee da ngay ñëw fi nga xam moom moo di Europe wala fii nga xam moom la ñu nekk li ngay wax mooy kat sëriñ Mamor de ndekee tiraanga ji xewal yi transport bu jàppandi bi moom la ñu yéene woon mais bu ñu xoolee ni tey état wu Sénégal ci ñi nga xam ni dañu nekk ay privé di def li nga xam moom moo di transport dañu leen di ci lu bare bari ndax matul woon ñu gën ko yaatal ba sax nasaraan mi nga xam ne tey mi ngi ci àll bi amoon yéene ñëw samp Sénégal entreprise pour def transport it ñu ko ci côté boobu mais bu ñu xoolee ni état bi dafa foofu lu bare bari. waaw loolu moom ni ma jaaxale dëgg yàlla kooku moom vraiment jaaxal na ma transport Sénégal moom ni mu tardé moom ak li nga wax ne lu am solo loolu sëñ Mamor xam ne ak sëñ Mourtala li ñu daan gis ci àll bi bëgg koo def Sénégal pour nit ñi dem ak les xam na ni dëkk il faut que nit ñi di euh, voyage voyage bu neex dëkk ba mën a dox mais loolu di tax gouvernement bi leen daj man loolu moom vraiment ba léegi damaa jaaxal chaque jour Sénégal trappam di gën a arrière heure bi moo noon a créé ay bis yokk imagine leen sept places sept places ñaata place lay def sept places un bis fii lu muy def bisu ngande yi presque quatre-vingt-dix kooku ñaata sept places la du douze sept places kooku di nga économiser di nga économiser euh, gasoil essence ak nit ñi dem ak ñëw loolu lépp mën nañ cee xaar bi éliminer sept places yi sept places yi du ma wax da nga ko éliminer nag chauffeur ñu teg leen fee da ngay chauffeur da leen jox liggéey jox leen dawal ci bis yi car rapide tam loolu ñu invité di ko Sénégal jox leen ay bés ñuy dawal Njaga Njaay yi tamit loolu ñu dund dund gu xaw a neex tuuti suñu jaamu yàlla gën a neex ñu gën a gën a jige yàlla billaay walla bu ko defee rek yàlla àddina day dox quoi yaa ngi tudd impôt euh, nga wax ni lu am solo la ci réew ca bu ñu xoolee suñu état bu Sénégal daf ci perte lu bari ba sax yaa ngi tudd ay immigré maanaam ñoo xam ne dañ fa nekk jóge ci yeneen réew ñooñu danga wax ni dañu waroon fay comme ni mu amee ci réew yi ñu nekk suñu tuddee Argentine tey boo amee boo xasee am kayit kayit boobu da nga fayal mu doon loo xam ne dafay duggaat ci état kees bu bu bu bu bu état bi. tudd nga sax ba wax ni nit ki ci boppam ci yu baree bari dañ ci war a fay mais bu ñu xoolee dañ ko négliger nit ki it ci boppam moom. war na ubbeeku ba xam ni kat impôt moom daf ko war a fay bokk na ci loo xam ni moom mooy jëme réew mi kanam suba incha allah. kooku dëgg la kooku moom wax naa ci lu bare bëri sax ko xajul fii dafa bëri mais dama dëkk moom bu amul impôt dëkk boobu mënut dox impossible boobu dara loolu mooy li ma ñëwaat Sénégal bëgg lu yomb lu mi ngi rek mais il faut que loolu gouvernement bi nag teg ay loi nag impôt nag mooy doxal réew impôt moo tax réew mooy dox xoolal ñun ñu nekk fii. ay étranger lañ dëkk àll bi dañuy fay impôt fii ku fi ñëw loo ndaw ndaw ak sa gox ma la ñëpp tolloo fay impôt loolu amul fenn mais ñëpp xaalis yore milliard fay lii yore million fay lii yore ay lu tuuti fay tuuti mais il faut ñuy participer dëkk ba dox mais Sénégal tàmbalul leen lu leen tàmbal lu yomb kenn dafay impôt def lu neex dëkk ba doxul lu wax ñu ne gouvernement ba loolu tam du noonu il faut impôt yi fay xoolal étranger yi nekk Sénégal bu leen doo weer rek. <laughs> ah sama mbokk état da ngeen ma jéggal nag wala moom dañ ñu koy def fii loo tax il faut ma wax ko foofu tamit loolu du dara il faut que ñu participer seen réew dafa lay dund fa la seen lépp nekk xaaj bi fa la amee doom fayee kenn ku ne 5000 francs ca réew ma rek xaaj boobu rek mën naa defar lu bari Sénégal buñ ko xeeb mais loolu dañ cee taxawul dara man gouvernement Sénégal xuma daal lan daal day nelaw xuma lan waaw vraiment defee lu dara te wàññi seen ministre loolu te fàtt naa ko wax ci kanam gouvernement fii ñaata ministre moo fi am Argentine 15 minutes xuma 20 dëkk bu d' habitants Brésil naka noonu Sénégal 12 millions xaw ma 15 millions 40 mille boobu dëkk ni muy doxee boobu boobu train de budget boobu pour ku ko attan loolu Sénégal attan ko il faut ñu waaj ñu ne bu bëggee dëkk dëkk ba dox nag ah, dëkk yàlla depuis Senghor nag Senghor moo dafa nekkoon bind rek amoon ci bind ban njëriñ la amoon Sénégal Sénégal suñu olof bi sax mën nañ ci développé olof bi ñuy wax nii. billaay wallahi mën nañ cee développé sans waxi français français lan la. élément jooju ab tubaab la laaj final la olof lan la ab dialecte sa waay sama xol bi day jeex tàkk olof langue la comme c'est espagnol bi comme c'est français bi mais danoo nelaw ban def comme dialecte léegi bàyyi ñu ci suuf yooyu yooyu tekkatul dara te ñun olof rek war nañ ko Italie foo koy fu ñu koy wax Italie Italie yéen koy wax Italie dong lay italien doo dëgg benn dëkk bi yox italien parce que seen dëkk faalewul boobu la ñuy nekk ci la ñuy développé waaye ñun suñu olof bi xeeb noonu ko ku wax sax ku waxul sax ñaari baat France ñu ne bokkutoo di la complexé di la wàññi di rouler R amul benn njëriñ réew ma loolu amulul njëriñ suñ bi dañoo defar suñu réew mi ci olof gi mënoo def sax langue nationale olof ñu voté ko billaahi defar ci réew mi di ci jàng mat di ci jàng science physique ci olof te day dem ca kanam waaye yow il est temps daal réew mi dox quoi te te ñoo ngi ñëw nag moo di moo di ñoo koy taxaw waaw loolu xam naa ko moom loolu moom dëgg la moom. Eh, ñu gërëm la bu baax euh, mi ngi tudd femme sénégalaise. Euh, xam naa sa gis-gis bokkul ak euh, Faty Guewel mi wayoon ni euh, dëgg-dëgg daal jigéen ñi ñoom ñoo yore réew mi euh, nga gis yow beneen gis-gis muy bokk na ci li gën a taade Sénégal femmes yi surtout ni nga xam ni noonu la ñuy dundee ci ci xew yi wax nga ci lu yaatu lu waral nga wax loolu. waaw dëgg yàlla jigéen Sénégal da nga ma jéggal nag samay soxna ak samay ñëpp mais ñu xale ñu dàq ci na bi man gis naa jigéen gune mais jigéen Sénégal boobu ñu dàq àdduna ci leen bokk mais nag yàq moom. bëgg mën nañ ko moom yàq yàq rek bàkkoog ñoom jigéen Sénégal da nga laay gis moom nga liggéey naa dajale ñoom xam ma day ñingoo waaye ba loolu moo laa ci laaj ma day ñingoo xam ma lu ñuy def machine bi am xaalis dañ naan suba la am nañ xew suba suba yoruñu dërëm balaa balaa fajar ñu génne la cinq millions ba dix millions nga ni ko fu boo ko jëlee muy lijjanti rek loolu Sénégal dong la balaa ngoon balaa xew maa jeex duñ am lu ndékkee am lu na reer. 5 millions yooyu daanaka yëkkati na entreprise bu ndaw. lu bari. ay doomam liggéey ci ay xaritam liggéey ci dëkk ba dox mais xalaatuñ ko nan dem xotti ñetti xotti ci journée bi ñeenti xotti juróomi xetti di ko solo ko simmeeku demee teg bopp ba san toog seen ganilaay yooyu xam dafa tàng amul solo guddi nga simmi ko sa bopp. ba ci ba seen takkaay yu yi lu toll ci 2 millions 3 millions nga def ko ci benn baat. wallaahi xoolal loolu. fii loolu fii loo gis tubaab yi ba nga dalee waaye loo gis tubaab yi sol yow. ceen yi ñuy jaay benn cent pesos di quatre mille Sénégal wala trois mille cinq jaay loolu lay sol bu paree sax yenn saa yi dañ koy sànni baaje maye la journée bi rek yi da nga naan waa tubaab bi ñoom ñoo gën a gëm yàlla am Sénégal nga a man loolu damay jaaxal loolu na a ay loi mu dégg na amoon na fa sax ay temps waa amoon na fa temps mais kenn appelé wu ko waaye def ay loi nag jàppale nit ñi bu dee ngénte am na ba ceet ñu ne ah ngénte li samedi daal ku bëgg a def ku bëgg a fo samedi ci guddi ngay fo mais kenn dootul fo neen jour bu lundi ba vendredi moom kenn du ci fo loolu daal bu dee dëj dëj moom kenn yàlla moom kenn dara moom waaye bu dee leneen ñun la samedi rek ngay am droit bu ku la fekk ngay ngénte ñu dindi la teg la fa ndax nit ñi tam il perd trop de temps quoi ci ngénte yi nga gis ko xëy suba huit heures lay fay toog xaar laax bi lekk laax raxasu toogaat yor kurusam bele bele waay bëgg laxtu lay toog di xaar añ ba demul fenn de jigéen ñi moom dem simmi ko ci solo ji daan sangu cinq fois ci journée bi di simmee ko solo ko rek góor ñi moom. bu fekkee dégg naa la mooy temps bu yaatu bi nga xam ne moom lañ ci perte par exemple bu fekkee nee nañu xew bi am na lu mat euh, téeméeri borom kër daañu fa daje kenn ku nekk da nga xëy ub sa place wala wala loolu. te te mënoon nañu tëral ay loi yoo xam ni daanaka dañ fay jële ngénte bu fekkee yàlla moom moo ñu ko tudd moo ñu moo ñu ko sant ni mu wax mooy bu fekkee am nañu xew nañu rey xarma bu la neexee mën nga ko saraxe nga xëyi ndax Sénégal mënul voilà très bien waaye boo bëggee foo nga fa ne samedi mais yeneen jours yi yooyu nag ñu nañu éliminer ko ndax waaw le perte de temps la kooku le temps nit ñaa ngi avancé ñu ñuy arrière te loolu man gouvernement dama gis dañuy gis loolu ñoom xam nan man man xaw ma danoo xamul xaw ma danoo xamul lu doxal réew xaw ma seen intérêt ci nekk xam xaw ma danoo bëgg nit ñi di gën a pauvre ñoom ñuy gën a riche loolu amul njëriñ te loolu jaaxal na ma dama président yi dama dama laaj ci ab ab am am Abdou Diouf baa lay wax dama ñaan ko financé million ba 10 millions dala ko may ndax yoru ko mais ay temps lu mu tàmbaloon nit ñi xaalis fu mu dem mayee xaalis mayee xaalis fu mu daan génne xaalis boobu xaalisam la du seen xaalis xaalis ci réew mi la loolu yomb yomb googu leen tàmbal nit ñi moo tax ñor nit ñi dee nit waru ko tàmbal maye maye maye day yomb boo ko tàmmee mayee mayee rek ëllëg rek boo ko mayul da yàqum réew tàmmal ko liggéey kereel ay projet nit ñi liggéey bàyyi maye bi loo gi Sénégal président yi ko ci retraite da dem nga ndax préparé wuñ seen bopp sax ñoom Sénégal pour toog fa li ñuy def dem France dem dëkk fa ndax foofu ñooñu seen dëkk ils ont ils l'ont bien préparé dañuy toog seen dëkk rafet gisoo benn président français ba américain buy génn dëkk Sénégal dem Sénégal dëkk waaye lay waa ñoom Abdou Diouf ñoom ki dañuy daw ndax nget ga mun ñu ko respirer wax ji bari te mun ñu koo dékku loolu lépp il ñu bàyyi ko wax ji bari tam baaxul loolu war naa ko war na ko wax Sénégal nga nit lu mu gën a bari wax wax ji bari xelam day dem ndax xel mënut a concentré ci bari xoolal gars yi ëpp xel ci bonde duñ wax presque seen wax jooju xel la mais buñ baree wax di dem ratatatatata xel mi day naaw te Sénégal loo ko yàq Sénégal day dugg ci car rapide salaamaaleykum maaleykum salaam tàmbale nit ñay wax di wax yi amul benn solo fii la ngay dugg ci train une de temps da dem fii ba capital doo dégg benn tubaab bu wax bu waxee da lay day ci nopp bi billaay wallaay day nànk xool yooyu éducation xool yooyu rafet mais fee di nga gis ko solo kenn dina dugg sama mbokku murit di sa waay dugg ah barke sëñ Fallou kenn ko ah sëñ Fallou kenn ko ah barke sëñ Alaaji Maalik kenn ko eh. coole coole coole bari trop ci ci ci wax ji comment. avant suñu Sénégal Sénégal jàmm lan xam. liggéey loolu lañ soxla fi ne nii nag liggéey lan waxati dëgg Sénégal danoo liggéeyul nous sommes très paresseux il faut ñu yee seen intelligence mu dem ñu defar réew mi sinon rek fee lay nekk bu baax a baax yaa ngi tudd waa li nga xam moom moo di place publique nee nga nekk na loo xam ni it bokk na ci lii. doxal réew waaye it askan wi it soxla woo ko trop te bu ñu xoolee Sénégal dañ ko manqué bu baax a baax. waaw ko loolu moom moo ko xoolee jàng ko ci tubaab bi ban bu njëkk dama ko daan romb sax di xool booy doog a jóg Sénégal di ñëw da nga naan eh, waaye waaye ñii ñoo bëgg lu neex rek lii dëkk te ci dund la bokk ñoom dëkk dund mooy li ma wax ci wala la la xat rek arab naa ba ne àddama gi waxatu rek nit lu mu gën a féex rek xelam gën a jóg nga boobu place yooyu gis ñu dem dimanche dafa yendu ji ba sax jóg toog li muy indiwaat ci nit xamoo ko sax man après dama ko daan toppandoo dem di xool lu tax lan lii ma dem di toog di ko mais ma ñëwaatee lënd doole jëmee àndal dem toog say say xarit foo naan dara dëkk lu am solo ci nit nit daf il faut nga ko oyofal affaire am nit lu mu gën a oyof rek lu mu gën a féex rek xelam gën a naaj lu place publique lu gën a ban ko Sénégal foofu am place publique ma ne benn laa xam naa place les place xaa laa xam ne ah te tubaab bi ko defoon waaye ñun de jaay rek roq boo gis njaay jaay xaalis xaalis mel ni ku dul dee bu faale bopp yëguñu yëg ci suñu yaram loolu tax tubaab bi yàpp ñu suñu bopp rek san àdduna lii du nii il faut ñu jàppale en la dans l'ensemble defar réew ma ñu dund tuuti ëllëg tubaab bi naw ñu tuuti nag ñu def def dara créer dara mais dafa ñaaw lool boo dégg bu ne ak noir rek bu ñu xool am noir rek dof gi la xool ci ñoom ñàkkum xel bi loolu dama ko xool tubaab bi de doon xool der bu ñuul bi de tubaab bi doon bu la xoolee noir ñoo ngi xool la ca ginnaaw tubaab mooy mooy ko xamul dara rek mooy ko nekk ci àll ba ko xamul dara nit ku ñuul rek waaye duñ xool mukk der bi ñoom nit ñi day yàggar der bi rek ñaar rase rase mais tubaab yaa ngi xool leneen ñii daal mooy ko bëgg la yomb mooy ko jéemul dara mooy koo xam ne àll ba toog rek loolu nag dafa ñaaw war nañ cee jug taxaw ci nag. te fekk na maanaam maanaam li ma ko mën a waxee mooy kenn ëpp ñu ay xel waaye nag euh, dañu des ci suñu ay état ci yu bare bari yoo xam ne waroon na ci jàppale suñu ay ndawi réew pour ñu dox bu baax a baax. laay wallaahi boo génnee fi nga xam tubaab ëpp ñu xel. boo ñu tubaab bi fii nii ëpp ñu ni xel am na ñoo tubaab yi xam yemuñu ni fii billaay wallaay dama koy xool tubaab yi da tay dañ lay xool ni la yow looy def ci dëkk bi di ko laaj samay mbokk gars yi tubaab yu yi bari yow lu leen def fii muy intelligente da ngeen a très intelligent mais suñu intelligent mu yeewul fee Sénégal dañ koo nelaw wala nelaw ba xam danoo paresseux boo génnee fii la ko koy gom commencé libérer sa xel loolu ñaaw na loolu gouvernement yi nekk ci kaw nag ñoo ko war a ci war a jug jàppale doomu aadama yi nit ñi seen intelligence yeewu tuuti dëkk ba dox mais defuñu ko lu yomb rek sol ay dara xëcc dikk foo caaxaan noir bëgg nguur laywaan sax moo tane woon commencé naa def mi tàmbalee ñëw commencé naa affaire tubaab commencé liggéey tuuti waaye dem ba ci suuf mu dugal ci affaire noir gi nga ko li ñuy affaire noir commencé bëgg a dugal doom ja nguur ay nguur neex ko ndeysaan yàqal ko lu bari adduna loolu lu ko fi jar. ok euh, ñu gërëm suñu suñu gan ci Touba Argentine TV Abdou yaa ngi tudd ponk bu am solo muy euh, li nga xam ne mooy façon habillement maanaam muy. naka la ñuy solo ci réew ma ba laal nga ci sax tailleur yi mu doon ponk boo xam ni bu am solo la yaa ngi indi sax ba wax ni euh, suñu col yi daal est-ce que wërtul sax ñu gën koo moderniser bu baax a baax. kooku moom xam naa ñu bari na ma ca mere moom ñu bëgg yore olof yeeg yooyu du ma wax sax yore olof ñaw olof rek la du yore olof ndax yore olof moom suñu yére yi moom ñu ngi koy jëlee Autriche Jesner gaa yi fa bassin yi ñu ngi koy jëlee Allemagne yi Chine comme du yore olof moom kon ñaw olof lay wax foofu. waaw côté boobu moom jaaxal na ma ndax Sénégal day dëkk bu tàng te dëkk bu tàng da ko utiliser loolu tam suñu xel des la foofu ñu lay toppandoo rek jees ñeer xeroon da ngay sol jees ñeer du noonu adduna da xool sa yaram yow lan mooy ci dox lan moo ko arrangé lan mooy bañ a téye sa yaram ba du noyyi lan mooy téye bañ a téye sa xel ba doo gaaw a mer yoo xam ko tàng jër da ngay mer xam seetlu nga lool bu yow seetlu bu seddee guy guy fii tubaab bi sa day mer doo du la sa bëgg xool ba seddee guy ba paas dérégral duñ bëgg dara duñ bëgg lekk duñ bëgg naan bu tàngi jër jër tamit day mel ni ay dox ni nga surtout ku ndox def nii Sénégal nag côté boobu lan lan des dana war a ko ay dermatologue yëpp di xool kii ba xam yëre bi sol ni arrangé wu ko sol ay coton dëkk bu tàng la ne tropical la war na yoo xool coton ba sew di ko oyof comme naari sax li def noonu am na solo nga seen yëre yi olof yi olof yi oyof yi seen waaye gis lu àdduna daal dara ñoo ngi ne quarante cinq degré <laughs> mu sol benn teg ci garaam boobu teg ci t teg ci caaya tegaat ci beneen mbaxana quarante cinq degré toog ci benn baas baas bi ngénte yàlla bu nekk ab baas baas bi nekk soixante degré rek waaw loolu kooku kooku da ngay feebar loolu lu ko fi ci àdduna wane sa daraja wane dara loolu <laughs> nit da nga war a xool tuuti yow li ngay sol ba xam lan la solo lu oyof dem jigéen ñi da ngay ko toog ci ngénte ma te tey saan toog ci baas teg musóor gi 5 kilomètres ci kaw teg jees ndeer jees ndeer rek bassin moom ngelaw dugg man dama ko sol benn jour moom dama du ma ko solaat man xam naa ñu njëkkante ak temps bi yaa ngi doon wax ci li ñuy perte surtout suñu mbokku téer yi bu ñu xoolee màggal tabaski korité li nga xam ne ñu ngi koy importé ci yëre yi ñuy sol simis bokk na ci pantalon ci pourtant am nañ ay téer yu mën a ñaw loolee tey lu teye ñu mënoon di ko créer foofa ci réew ma wut ay machines yoo xam ni ñoom ñoo koy ñaw lañ ciy jëlee di delluwaat ci réew ma lu am solo nga wax point boobu moom dama cee sore sax dama cee wax lu bare bare damaa gis tailleur Sénégal ñoom dañoo concentré rek ci yëre olof ci ñaw olof rek bolog caaya yooyu rek du dugg mukk du jéem a wax ci ay chemise li jeune jeune ba Sénégal yëpp chemise la ba rek ñooy solo léegi waaye ñoom bu amee seen ñaare bolog ñett ba doy na mais je chaque jour sa chemise t-shirt slip de bain culotte yooyu yëpp moo nañ koy ñaw di ubbi di affaire di agrandir seen i entreprise di jël ñu bëree bëri mais ñoom da ngay ubbi ak leen bu ndaw rek ñëw caay caay 30 ans mu retraité euh, naan kii xeewi na jigéen naan kii xeewi na moom mu dem toogi ne la ba ma bàyyi tool. sooy du jéem a bay nag jéem ñaw la leen nag. jar na sax ñu génn dem jàngi bu dee la mën ñu ko ñu génn dem jàngi waat xoolaat tuuti ñaw lépp Sénégal tey ku leen dàq ñaw ci sud ci région bi foofu noonu sous région bi dañ koo man waaye bu ñu ko doon def heure bi xaaj bu weer lay dugal Sénégal dinañ ñawal nit ñi mu rafet waaye nan bàyyi yëru olof yi njëm yeewu xel tuuti loolu tam gouvernement war nañu cee jàppale yee leen ci def ay atelier di leen ci trans di leen mais chaque jour yëru olof yëru olof rek loolu fu muy dem loolu du dem boobu dëkk du dem ah Euh, ñu ñëw ci leneen loo wax lu yaatu muy wàllu télévision euh, tudd nga ko nekk na loo xam ne nag luy suyee la rôle bu am solo ci réew surtout réew mu mel ni mu Sénégal bari ñoo xam ni maanaam jànguñu te lay waroon na taxawaay taxawaay yoo xam ni ñoo leen di yee yu bare bari tout ñuy waxtaanee loo xam ni développement la ngir askan yu mën ci. jëlee xel pour développer suñu réew mais bu ñu xoolee tudd nga ni seen programme yi dafa man ni ma ko mën a waxee mooy baaxul daal daanaka ci gën a réeral nit ñi lañ gën a taxawee comme ça. waaw waaw télé Sénégal moom vraiment man xool naa ko daa am benn sama xarit bu ko jàpp temps yi ne euh, indi canal ba am ko ci këram ma dem fa benn jour ma xool xool man gisuma télé Sénégal man loo ci mën a seetaan loo ci mën a avancé un franc man gisuma ko man vraiment man xool naa xool nag Séné vraiment Sénégal war na xoolaat télé yi loolu ay loi nag musique fecc way way yoo xam kenn xamul lu muy nuru fecc moo xam kenn xamul ay rab lan xamul ay jinne lan xale yi guddi bëccëg ñoom ci télé yi ñi ci xaw a télé sax temps yi ñi ci xaw a développé tuuti defe naa mooy théâtre yi ñoo moom laa gis temps yi ñuy changé système te naa waajoo sa moo fi indi moom defe naa waa ji demoon eh, Espagne waaw kay kooku moo dem Espagne ñëwaat tuuti loolu tamit la wax Modou Modou ëllëg ñoo yor réew ma li nga waxoon rek moo demaat gi ñëw changé gars yi xoolaat gars yi toppandoo feneen nii sax loolu sa baax na mais dafa war heure xale bu ndaw war ñu koo bàyyi muy seetaan télé à partir de dix heures ak neuf heures dafa am délai man li ma gis tubaab boog dama gis télé dafa am heure boo xam pour xale la mais xale waroo bàyyi concentré ci xelam ay way fecc day dem ba xelam day dem waaw moom léeg lay dem day dem ba concentré di way loolu baaxul loolu war na cee taxaw bu def ay programme yu am njariñ information ay envoyé spécial di wan yi dox ci yeneen réew mi yéen nit ñi tuuti mais télé Sénégal moom way fecc way fecc da ngay set 24 sur 24 way fecc yooyu boobu télé ba ban njëriñ la am nag Sénégal nag loolu lu ko gën a taral la loolu lu moo gën a sunu xel lim neex a neex neex télé yoo ko gën a nëxal encore nag waaw lan lan suñu intelligence leen ko naje noonu transport bi sonal na dëkk bi salte yooyu bari dara doxul trans dara doxul nit ñi mer mer tele bi moo ñëw yokk ko nag ndax boo dee sa kër ngay toog yow bëggoo tukki ndax voyage baaxul bëggoo génn fee ndax fee daa taa bëggoo dem fee ndax li daa metti bëggoo dem fee nga naa toog ci kër gi nga toog ci kër ga jàkkaaroo ko def rek ngay gën a def rek nag feccekat du feccekat ba keroog ñu ni fu <laughs> ñu gis ñu ne noir ba fecce rek ci loolu ñaaw na Sénégal kon nañu dégg surtout suñu mbokk ñi nga xam ne dañu nekk ci ci ci télé bi ak seen programme yi euh, yaa ngi tudd lit wàllum làmb ja mu doon loo xam ne mooy suñu suñu suñu culture comme niñ koy niñ koy niñ koy waxee muy bëree nekk lu fa yàgg mu mel ni bind nga ci lu yaatu it am loo ci loo ci seetlu lu bokkul ak ak ak ni nga xam ne ni ñuy doxale bu ma la déggee yow mooy dañ ko war a changé bu baax waaw loolu lutte bi moom vraiment ah mën na bëggoon naa ay làmb ay temps ba ma nekkee xale bëggoon naa làmb di seetaan waaye boo ne ba ci kanam laa xam ne nii ne dañuy foog quoi man la loolu xaw ma CNG am na fa xaw ma ministre des sports la xaw ma lan la mais làmb lu gën a di tax ñëpp bëgg a ci làmb ja loolu yomb gi yomb gi da ngay préparer si un bëree 3 secondes am 100 millions ah xale yi nag sa waay dootuñ jàng xale yi ñëpp dañuy dem bëri ji ba da yàlla man ma woon ba amoon doy toon nga xam te damay bëri ji ah kon dama nekk fii rey sama bopp ci àll bi de di bër bi moodu moodu damay dem kon dem bëri ji 3 secondes ñu laal ma daanu ma am 3 dañ koo defaraat am ay round Sénégal ay ponkal nga fa baa ñu créé ay box salle de boxe ñu international ñu dem uti xaalis dem di dem di dëkk maay weser mais uti milliard mais laal tuuti ngemb yi da ko war a dindi civilisé tuuti àdduna day dox ay ngemb tradition la woon mais àdduna day avancé ba xam ñooy tradition tradition ba kañ sol ay culotte rafet kuy dem ay sëriñ ak yii nga dem yemale ko sa kër te kër boo defee sa sëriñ ba doyal boo ñëwee ca yàmb ñi nga bëree bëree rafet sol sa clé def ko ay round un ba trois ba dee trois round la nga def ba cinq round la nga koy def ñu xool ko ci man ñu di xam ko ku daanu trois fois ba deux fois ñu xam ne kii moo la man boobu xale yi bari dinañ arrière dinañ ah. tudd nga tudd nga ponk bu am solo boobu dinaa ci ànd ak yow muy ñi euh, nga wax ci wàllu sëriñ yi comme ça. bu fekkee ñëw nañu ni ñuy utiliser woo seen i garab ci biir ci biir ci biir terrain bi télévision yi di leen di leen wane loolu li muy jural ci ki nga xam ne mooy ndaw bi seetaan wala ñu bari dañuy jàpp ne lépp lu ñu dugg rek ñoom loolu moom moo leen ci war a génne bu fekkee daan daan nañu na ah, très bien mu woon bañ a daan kat parce que laaj yu bare yi li mu sangoo ah soow ma mu ma ma diwoo bu daanu amee ñu ne nag yàlla nga xam ne daanaka dañuy image bi ñu wane mooy dañuy xaw a sax fàtte yàlla ci ci ci li voilà très bien. ma waxoon rek day dem ba fàtte yàlla léegi làmb ji rek lu yomb rek lu yomb mooy moo yàqale ne sëriñ bi moo tax muy daan kee moo tax muy daan ñu ne dara nan ngemm ji rek boo dee sëriñ di nga daanu te ba ñaata yoon la fi dem ab sëriñ day daan kii daanuwul yooyu yëpp dañ ko war a génne suñu bopp defaraat suñu réew mi taxaw à zéro tàmbali à zéro Sénégal defaraat jikko yi defaraat xel yi réew ma léegi ci kanam tuuti nga ne nga ne Abdou Dieng waxoon na ma ko il faut ñu commencer à base à defar réew ma bu ko defee maa ngi ñaan nag sama mbokk moo di moo di yëpp fu nekk fu nekk ci àll bi nga gën a jàngat bu dee tailleur nga woon nga xool expérience bi nga jàng ba dee maçon nga woon nga gën jàng bu dee élève nga woon nga yokk sa xam-xam bu dee keneen ak yéen nga def kon ñu réew ma ñoo koy yori te ñoo ko mën am na expérience boo xam luñ ci boole ndaw rek Sénégal du taxaw sax waaw ñoo yor réew ma économiquement ñoo fay def suñuy milliards suñu xel bu demee Sénégal ñoo koy yor ñoo ko ma mais gouvernement yi ma gis nii gëm naa ne duñ defar Sénégal ñoo ko mën a yor loolu xam naa ko waaw jërëjëf. Euh, jaajëf suñu gan ñu gërëm ko bu baax a baax yaa ngi tudd lu am solo ci réew bu Sénégal muy agriculture wàllu mbay ma euh, sax moom la ñuy booleeg wàllu meew mi li nga ci seetlu bu ñu xoolee am nañu suuf bu yaatu boo xam ni àddina bi yëpp ñu ngi ñu ci ñee réew yi nga xam ne ñoo fi développé it nekk ci kaw daanaka la leen fa mooy mbay mais bu ñu seetloo suuf si yaatu na waaye daanaka lu bare bari tey Sénégal da koy jëgaani mënoon ko bay foofu seen suñu réew wax nga ci lu yaatu. wallaay wallaay wax naa ci lu bare bari mais bi ma ci laal rek pour bañ a mooy ma demee Sénégal temps yee passé rek dama jaar euh, janvier février bi noonu di dem Dakar Saint-Louis Touba foofu fu ma jaar mandarin yooyu bari lool ci mbedd mi ma ne ah lii Sénégal de moom vraiment ñoo ngi góorgóorlu lii de moom baax na moom lii moom su réew mi ci kanam ndëkkati yóote bi ma laajee ku ku ko bay ñu ne ma marocain yoo ko indi ñu ne ma marocain daal ñu seen kam yooyu ma ne lii marocain ñëw indi waaye ñun Sénégal da ngay nelaw rek te Maroc ëpp ñu ndox ëpp ñu suuf ëpp ñu dara xoolal xoolal yooyu yooyu yooyu ñàkk xam-xam loolu lu bon mën noo sax def buñ première année ñu xool marocain yi def président bi taxaw ba ministre agriculture taxaw ne lii moom ñaaw na déwén moom yóbbante keneen même bu dul Maroc ñu dem faneen def fruticulture dem yeneen xool yeneen dëkk ñu jàngal leen ko pour ëllëg ñu def ko mais loolu dafa consommer rek Sénégal on consomme tout ne produit rien toog rek consommer boobu dëkk ni muy doxee agriculture moom dañ cee war a taxaw réew mu dox fi ne agriculture la les grands états du monde là agriculture moo dox jàppale baykat yi ut des machines loolu rien n'est impossible bàyyi sunu bay yàgg yi ni bay loolu mënut a doxal réew ut ay machine ay tracteurs fournir leen financer leen xaalis bi ñuy leb ay FMI ay yëpp buñ ko defoon ci agriculture bi tey jii bàyyi yàq gi léegi dem nañ bu yàgg vraiment doxul meew mi benn jour laa seetaan fi programme damaa waar sama seetaan benn jour France 24 laa ko seetaan xaw ma erreur fi daal. Ah. fekk xoolee 6 mois 5 mois lay taw Sénégal lu toll ci 7 mois nga bëgg ko tëdd suñu suuf di ko tëdd di nelaw. yàlla béykat yi di nelaw gi nga xaaj bi ne béykat yi itam day dem jaayi ambulant ndax amuñu leen lu def te loolu lépp gouvernement bi taxawoon te loolu nag béykat yi mënuñu ko amuñu xaalis il faut gouvernement bi jug taxaw ci jënd ay machine def nii bay leen moor def ay irrigation lu yomb la dafa yomb dañ ko dañ cee jéem la rek ma dafa yomb waaw li ma wax ne benn jour laay seetaan benn documentaire ba gis meew Sénégal ndekete yow Sénégal moo ëpp sax ay nag France loolu xaw ma ko woon de Sénégal moo ëpp moo ëpp ay France ay nag te Sénégal Sénégal lu lu naan ñun meew yëpp Sénégal lay jugee eh, France lay jugee loolu dafa ñaaw jéemu ñoo def dara jàngal te ubbi benn usine sax ba traité am meew dañuy consommer rek meew juge jóge Sénégal libaane di ko fi indi marocain di indi meew mi français yi ñuy naan di jënd rek xamuñu fu meew jóge te xaaj bi yëpp suñu meew la lay dañ koy tuuri baa ñu dem jaay ko ñu transforme indiwaatal na ko transportement masa meew loolu yomb na seex bi kooku buñ ko jàngoon tuut dañ koy man mais dañ ko jéemul consommer rek ñun daal ñooy réew moo xam consommer ñu dara waaye il faut ñu commencer éveiller suñu xel yee xale yi jàppale réew mi gouvernement bi taxaw ci dans cinq ans dix ans quinze ans ngay di Sénégal bii day avancé ndax Sénégal li ma waxati la xadd karab daa ba ni aadama boobu Sénégal ad yàlla ni mu bëggee mm, ci ni doomu adama man gëm naa Sénégal la gën a bëggat encore ndax nit ñu baax ñi ñu jox à part ay arab saudi yooyu ñu ñu baax ñi waat foofu ñoom maam Serigne Touba Alaaji Malik ñoom ñoom Baye Laay ñi ñu sànni Baye Ñas ñi ñu sànni ñooñu xam naa Sénégal la gën a bëgg te bu jàppale woon pour suñu bopp ñun bëgg suñu bopp defar suñu dëkk rafet sol lu baax di lekk lu baax defar suñuy dëkk defar ay public lumière yi làkk tàkk dëkk bi leer léegi nga gis ni Sénégal ba beneen dëkk la Sénégal la ci jàpp mu dem kanam waaw. mu mel ni euh, suñu émission jeex na waaye loolu lépp nga tudd doon yoo xam ne da ngeen ko gis ci réew yi ngeen nekk jànge ko ci mu nekk loo xam ni mooy jëme kanam ci réew ma ndax tey yéen mur yi programme ngeen def ay kuréel yoo xam ne yéen a ngi xeex jëm ci loola wala am Abdou Dieng rek mooy na ci ab ab ruqam bind ay livre am xalaat bi it tëdd ak moom wala it yéen a ngi xalaat ngir lëkkaloo ngir tey dox jëm ci loolu nga xam ne moom ngeen bëgg ngir nekk ñoo xam ni yéen ay taxaw réew ma lëkk. loolu am na laaj bu am solo la laaj bu am solo la am na solo gaa yaa ngi ci ndax fu ne ma déggee gaa yi ni waxee ci monde bi maa ngi dégg mode mode fenn fu ne États-Unis et Amérique Allemagne gaa yaa ngi wax fi ne seen seen xol jug na fi ne il ñu dem te loolu xam naa am gis naa association yu bëri tamit yoo xam ñoo ngi dem pour jàpp Sénégal mais ci kanam tuuti dinañ gën a lëkkaloo ñu bëri maa ngi waxtaan ak ñoom te gis naa ne ci kanam tuuti daal dina am solo lool moom xam naa ko projet yi moom ay surprise lay nekk ndax fi ne boo xoolee projet dem Sénégal duñ koy da ngay bind ñii di bind ñii di jàng ñi teg ñu demandoo rek Sénégal baax defar ko ba faw gaa yaa ngi ci kawam loolu incha allahu rabbi. Touba Argentine TV gërëm na la bu baax. Euh, avant tout loolu nga wax nu rek ci gis-gis bi nga am ci scène bi nga xam ne Touba Argentine TV. waaw scène bi wax dëgg yàlla li xam ma taamu ko maa ko xam vraiment dama xool di séance seen i vidéo mu am solo lool. ndax dama ne mën naa defar sama bopp ma ni loolu baaxul comme que maay Argentine naa lëkkaloog waa Touba Argentine na solo fi ne may naa jaar Argentine ñëwet ñu jàppale ma ñu Sénégal Sénégal jëm ca kanam te xam naa ne loolu lay jógee Argentine incha allahu rabbi ba monde bi yëpp Moodu Moodu fu nekk dina te Sénégal dina dox. ok ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax nga tàggatoo. waaw li ma rek maa ngi ñaax rek sama mbokku Mody Mody mi foo nekk fu nekk ci àdduna ñu jokkaloo yokk gën a yokk xam-xam bi gën a yokk expérience bi sunu xaalis mi ngi dem fii ne sunu xam-xama des ñu dem nag yóbbu ko Sénégal defar Sénégal yor réew ma taxaw taxaw Sénégal ba faw Sénégal nekk un pays développé. loolu daal laa bëgg maa ngi ñaanal ñëpp nag ku nekk euh, foo nekk àdduna yàlla jàppale la ba nga ñibbaat ak jàmm ak salaam seeta sa njaboot di wasalaam may gërëm waa Sénégal yëpp kontaan naa lool jërëjëf.